Abonnez-vous sur Hamalma TV ngir jëmbal kàddu mag ñi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk jullit ñu ngi leen di nuyu di leen ziara bu baax di leen ñaanal jàmm te di ko sàkk bu baax a baax di leen wax nag seen seen Hamalma TV euh, mu ngi ci lim bu woon ba léegi rek mooy cagnotte Kopar Express boobu noonu nga xam ne dañ ko créé ngir ngeen soutenir seen seen Hamalma TV pour ñu gën a mën am ay matériel yoo xam ne soxla nañ ko te xëy na amaana post bi matériel wu ko di sàkku seen ndimbal bu baax a baax a baax wax nag lien vidéo bi mi ngi ci suufu description bi premier lien bi nga njëkk a jot rek ma nga gisee laal nga dem directement ci Copper Express nga yónnee ci fu li ñu fa bëgg a yónnee wala tamit ma nga ñu koy yónnee par Orange Money wala wéer ci numéro boobu ci 77 911 75 66 boo ñu si yónnee rek incha allahu rabbi dinañ ko jot wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaw kuy tukki te bëgg a dem ci jàmm ñëw ci jàmm dangay jàng faatiha jàng asta def astaxfirullah juróom-benn yoon def laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min azalimin laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min azalimin 66 mu jàpp allah julli ci yonent bi ñetti yoon danga nga dem ci jàmm dellu si jàmm fekk fa jàmm incha allahu taala tukki bu mu mën a doon nag incha allah te da nga am mucc ak mucc le asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk julli ni ñu ngi leen di nuyu di leen ziara bu baax di leen ñaanal jàmm te di ko sàkk si yéen bu baax a baax di leen wax nag seen seen xamal ma TV euh, mi ci limbu bu woon ba léegi rek mooy cagnotte Kopar Express boobu noonu nga xam ne duñ ko créé ngir ngeen soutenir seen seen xamal ma TV pour ñu gën a mën am ay matériels yoo xam ne soxla nañ ko te xëy na amaana post bi matériel wu ko di sàkku seen ndimbal bu baax a baax a di wax na lien vidéo bi mu ngi ci suufu description bi premier lien bi nga njëkk a jot rek ma nga gisee laal nga dem directement ci Copper Express nga yónnee ci fële li ñu fa bëgg a yónnee wala tamit mu nga ñu ko yónnee par Orange Money wala wéer ci numéro boobu ci 77 911 75 66 boo ñu si yónnee rek bi allahu rabbi dinañ ko jot wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.